Adama am na tontu certainement. l'échec euh, l'échec c'est c'est la défaite d'aujourd'hui. de censure. l'échec l'échec mhm. c'est vouloir abattre un gouvernement mu ñàkk pour mu daaneel Amadou Ba ak son gouvernement tu te retrouves avec cinquante cinq voix échec mooy bëgg jël Sénégal nërmeel ko jël gouvernement bu Sénégal ban ñu gérer askanu Sénégal député yi nekk biir assemblée nationale représenter le peuple ne la loolu du ci am c'est ça l'échec échec bi du leneen dul loolu échec bi mooy li xew tey biir assemblée nationale échec bi mooy budget bi régler problème assemblée nationale du du régler problème askanu Sénégal ñi ñuy les représentants du peuple voté ko budget bii ñuy voté ci ci secteur bu ñu doon man duma ci ànd parce que damaa bëgg bloquer système assemblée nationale les députés yi nga xam ni peuple askan bee leen fa andi ñu ko loolu mooy du leneen lu dul pexe boo teg pour yàqal askanu Sénégal bloquer budget askanu Sénégal daaneel gouvernement askan bu Sénégal député yi nga xam ni askan bi moo leen fa yónni ñu won la gannaaw dëddu la loolu mooy échec échec du leneen lu dul loolu parce que nag maa ngi doog a comprendre que tey musumoon yaakaar nag parce que je n'ai jamais pensé que c'était une défaite mais c'est une défaite cuisante de l'opposition de Yewwi je ne dirais pas de l'opposition sénégalaise de Yewwi Askan bi liñ doon wax naan seen député li ñu nekkee biir assemblée nationale ñoo leen ko sant maa ngi koy doog a gëm budget boo xamante ni pour askanu Sénégal la. ne ko voté soo demee commission technique nga àndi. wax nañ raison ko waral waa déglu rek. premier ministre ñëw taxaw def discours de politique générale ngay wax leneen parce que askanu Sénégal le gouvernement du Sénégal askanu Sénégal lay liggéeyal. liggéeyalul benn parti politique parce que suñu duggee ci biir hémicycle boobu on ne parle pas de parti politique donte nag am na ay kuréel yu lëkkaloo. ñooñu askan bee leen fi andi waa ana ñi amoon cinquante six députés ci élection législative yi passé ana ñoo xamante ni suñu booloo woon am nañ quatre vingt deux loolu mooy défaite loolu mooy échec Gallo jox na la réponse non ga non dama ne nii awma dara lu ma leen di wax awma dara lu ma leen di wax ñoom porté ñu motion de censure doxuñu ci mission de censure waxuñu ko te fu ñu defee fu PDS defee motion de censure daf koo justifié. défaite mooy 125 députés à 80 députés. daf koo justifié 83 à 83 députés loolu mooy défaite. daf koo justifié 125 députés à 83 députés loolu mooy défaite. ba ko mu daal non loolu mooy défaite. ba ma amee défaite damaa toog fii ne c'est une défaite c'est une victoire amère. man su ma ñàkkee damay nangu de su ma taxawee xam ni dañ maa dóor damay taxaw ne dañ maa dóor j'ai j'ai ce courage politique de dire que j'ai j'ai j'ai failli perdre les élections législatives <laughs> parce que j'ai eu quatre-vingts <laughs> Abdou Khadr <laughs> sëñ bi sëñ bi sëñ bi man nag saa yi man duma ma làqatu samay samay gannaaw de mm-hmm. dañuy nangu tey dafa am loo leen tàmbali woon bëggoon mu am ngeen ñàkk ko di làqatu nag naan ñu po question politique nag ay nangam sangam soo leen sañoon tey biir hémicycle jubilé bii waa Benno Bokk Yaakaar di jubilé yéen. bu ñu sañoon tey tey président Macky Sall génn palais bi. Ah, malheureusement loolu bi. loolu loolu lay defee à travers les urnes. non bien sûr à travers les urnes. dama ne loolu lay defee li li xew tey mooy defee gis nga nag dafa am loo xamante ni moom lay bañ ñu dugal l'affaire aujourd'hui c'est la défaite de Yewi au sein de l'hémicycle par rapport à la motion de censure. L'affaire aujourd'hui, c'est les problèmes qui existent dans cette intercoalition. L'affaire aujourd'hui, c'est ce comportement des gens par rapport de cette intercoalition, je ne dirais pas, de la coalition Yewi, parce que on a fait 5. Dans une intercoalition, là, nous avons nous avons hémicycle. Connect Bersadara. am sa groupe parlementaire di gérer sa groupe parlementaire di jël décision sa groupe parlementaire mos ngaa gis biir hémicycle groupe parlementaire wàllu toog ak yooyu toog waxtaan. Eh, sa président sa yoonu yokkute la bi jaay ñëw indi waaw kon da ngeen andi leneen. yéen la rek yéen la rek li ma ci mooy tey échec boobu ñuy wax di ko tàllal tey la échec am. mais njëkkoon naa am ah? tey la échec am <laughs> am pexe. bëgg dara ñu duma la li nga bëggoon jàllul tey la tey la jeex parce que dañ ko tàmbale woon nag ca vote président assemblée nationale di wàcc ne duñu voté budget yi di wàcc ne dañu bëgg a bloquer assemblée nationale pour natt seen doole mais seen pexe boobu jubul parce que tey li ñu bëggoon jotul won nañ leen ni askan bi ñi mu fal foofu te andi leen fa te nit andiwu leen fa c'est le peuple sénégalais moo leen fa andi du ñu nangu seen gouvernement ñu daaneel ko. ça qui est d' accord c' clair euh, je pense que temps bi ñu mayoon jeex tàkk ñu def benn tour de table bu ko defee ngeen joxe seen dernier mot Gallo euh, Babacar. Euh, tàgguwaale en même temps mais kontaan rek aussi mm-hmm. vraiment ci ci débat bi. mais am tuuti loo xam ne naa sax ñu dugg ci mais bon. comme je suis pas le le maître des débats. allez-y vous avez l'occasion rapidement. le rapport. Mm-hmm. rapport Cour des comptes bi. bon ndekete sénégalais yi dañ leen daan dóor pour ñu tëddi pour mm. ñu seen alal c'est ça réalité mm. ku ne xam ne ni ko wóor bi commencé duñ doon dóor sénégalais yi mais rapport bi li mu génnee ni temps Covid la am kooku dafa daw sama yaram mm-hmm. parce que ci période tragique boobu feebar bu ñu demee ndeysaan ba ay développement da ci am je me demande où pays c'est malheureux et il faut consulter ce rapport xam ne vraiment c'est trop malheureux mm. il y a des gens qui euh, la Covid Covid feebar ku tax am dara kon bu ki nit dee doo wañ dara euh, waaw c'est donc man déjà pour rebondir un peu ci rapport bi. Euh, c'est vrai parce que bu ñu fàttalikoo le président Ousmane Sonko bi mu demee wuy ji président Macky Sall au palais bi mu génnee taxaw ci bunt bi déclaration bi mu defoon li mu njëkk a wax mooy transparence ci ni ñu nar a gérer alal bi ñu euh, jagleen Covid 19 loolu njëkk a woote malheureusement ce rapport là lui donne raison. des détournements de tout azimut lañ constaté. mais man li nga xamante ni aussi euh, en tout cas juste juste ci Sénégal mu leeral ko c'est l'affaire des 45 milliards de ce contrat d'achat d'armement vraiment euh, dafa di càcc gu leer goo xamante ni dafa jéggi dayoo ci fi Sénégal toll ci ndool ci chomage ci ci ci ci ci ci souffrance dundu askan wi ñetti ñaar ñetti nit euh, nar a circumloolu 45 de nos milliards c'est c'est c'est grave. vraiment maa ngi ñaan donc à travers cette émission ce que la justice sénégalaise mu càmbar leeral jëm ci loolu gannaaw loolu nag di la remercier bu baax a baax ci invitation bi nuyu suma co-débatteur yëpp mm-hmm. nest euh, di wax ne c'est un plaisir incha allah rek peut-être nañ dajewaat ci yeen ci yeen anam di wax sama <laughs> sama co-débatteur que ni dañ <laughs> nangu que ni bi moom mu toll nii <laughs> dañ ko téere bañ ci may kenn mm-hmm. yàlla baax na. d'accord Adama. waaw damay rebondir fi waxee ah. di ñaan justice su Sénégal que dañuy ñaan justice Sénégal mu leeral l' affaire des quarante cinq milliards damay ñaan mu leeral l' affaire de du de Adji Sarr <laughs> voilà parce que dañuy ñaan justice rek justice dañ koy ñaan ci loolu ni muy leeralee justice su justice su viol boobu l' affaire du viol de Adji Sarr contre Ousmane Sonko justice bi leeral leeral ko nag leeral nga xam ni ki nga xam ni dafa am dëgg mu féete foofu parce que suñuy ñaan justice nag buñ ko ñaan rek yemal ko fenn dañ koy ñaan côté yëpp que cette affaire comme l'affaire des 45 milliards de, du de l'Environnement, comme l'affaire des 94 milliards, comme l'affaire des... Parce que c'est des affaires. puisque c'est des <laughs> affaires. buñ ci leeral nga am problème bi man may ñàkk problème de da ne. Mm. na justice leeral di lii. ma ne na justice leeral lépp. incha allah rek. na justice leeral lépp. Mm-hmm. bu ñu nëbb dara. l'affaire du viol. Mhm. l'affaire des 94 milliards. l'affaire des 45 milliards. ba pare. Prodac ma yokk ci Prodac bàyyi ma terminer. Cheikh sa sa sa leader sa ma ñëw damay terminer. <laughs> pour te dire que man dama lay wax ban genre. damay ñëw ci Gallo li mu wax. ñu ne cette affaire du du la du rapport de dama bëgg le président de la République Macky Sall mu sévir mu sévir laa wax parce que li mu wax la moo ci ne am na ñoo xamante ni ñi ngi ànd ak moom ñi ngi yàq liggéeyam te ñii nga xam ne rapport bi daf leen épinglé par rapport à l'affaire de la Covid moom président ma lay ñaan nga montrer l'exemple par rapport à ces gens-là parce que loolu muy dëgg fu ñu yabee président Macky Sall yab ñu nga xam ni suñu morom naataango day taxaw wax du ñu siggi xool ko ndax affaire yi man nag duma ma protéger ku yàq ah. ku nekkul ci dëgg dama naan nekkul ci dëgg. Mm-hmm. rapport Cour des comptes bi li mu décelé na ci président jël ay décision décision yi du càggani rek. wàcce daaneel dem leneen loolu du décision yore bu mu yem foofu parce que liñ koy yàqal moo ëpp foofu téeméeri jël lañ koy defal donc na ci jël ay bi xam ni ñii nga xam ni tudd nañu ci rapport bi defuñu lu dul yàqal ko parce que moom présidence bi mu bokk kenn mësu koo dégg ci malversation ak leneen ak leneen ku tilimal deru président Macky Sall ci ay nitam nga jaar ku ko wax lu ñaaw ay nitam ñoo def comp comportement boobu ñu wax lu ñaaw. mooy def casting bi des fois aussi. oui moom maa la wax dama ne ci ay nitam. Hmm. parce que ay nitam lañ naan par exemple ñu saaga fële sax ñu ne président Macky Sall ay nitam ay nitam ñooy def lu ñaaw li ñu yàpp ko et ça fait mal ñun ñi nga xam ni dañ ko gëm def ko royuwaay te nag on va mettre en bouclier. par rapport à ces gens la ñi nga xam ne dañoo jóg rek pour yàkkal la président de la République Macky Sall par rapport a leur gestion parce que nag xaalisu Covid moom période feebar président jëlal sa responsabilité rek la merci merci beaucoup Adama Fall mbokk yi jërë ngeen jëf amoon nañu mbégte euh, dalal fi Adama Fall di président collectif des enseignants pour la réussite de Macky euh, serment Euh, bokk ci APR benn Bokk Yaakaar de manière générale amoon nañ mbégte également dalal euh, Gallo Tall membre de la commission communication du parti démocratique euh, sénégalais nekk membre comité directeur bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax jaajëfal aussi Babacar Ndiaye nekk membre du bureau politique national du PASTEF ñu ngeen leen di jaajëfal itam mbokk yi ci teewlu bi nga ñu doon euh, teewlu amoon mbégte euh, toog fi waxtaanee réew mi ak lu jëm ci wàllu motion de censure bi nga xam ne daal dinañ koy rejeté tey fële ci assemblée nationale motion de censure ngir euh, mën a renverser gouvernement bu Amadou Ba waaye jotul antu kon nag Amadou Ba ak gouvernement am ak 6400 yi nga xam ne daal dinañ leen koy votel ñu mën a wëyal budget bi. liggéey bi ci atum 2023 ak programme bi nga xam ne lal nañ ko muy budget. Euh, solution bi ngir indi ay saafara ci jafe-jafe askan wi nañ ci euh, xaar xam lan la euh, loolu di jur ci ay résultats ci impact sur le quotidien des populations sénégalaises jaajëfal nañ leen bu baax mbokk yi di leen ñaan ngeen wéy di ànd ak Sénégal 7 di leen ñaanal fanaanu jàmm jër ngeen jëf